Jennifer euh, Costez également Ibrahima Dia euh, Kauder également donc guide de di aussi tous les activistes républicains Anita Diop Kouline Dioum euh, donc Fatou nous, nous, il y Didi diem également hmm, donc euh, kenn Koulim ken Koulim ah, ñu leen Nous voilà donc Gaï, euh, trop content d'être là mais vous leen ni heure d'hiver donc décalage une heure de temps entre nous et Sénégal bon ñu bari ngi live bi ziar bu live depuis 15 euh, heures Sénégal mais c'est 16 heures Sénégal donc 16 heures Sénégal euh, moom mooy suñu 17 h avant décalage ou 2 heures de temps là parce que heure était la woon donc suñu 17 h fille en France moom n'est que 15 heures Sénégal waaye légui, ak heure bi changé heure hiver bi suñu 15 suñu 17 heures moom suñu durmi waxtu mooy don yéen yen, ñeenti waxtu ci ngoon donc légui, ñun ñoo benn heure ñun ñun ñun ñu nekk Europe ñoo leen rawee benn heure yi ñu nekk Sénégal voilà Aminata Bellamy aussi maa ngi lay ziar euh, bu baax a baax Raphaël ingénieur soldier maa ngi lay ziar également bu baax a baax gars yi tey waxtaan bi tey nii lay euh, tëddee euh, donc tey dinañ ñëw ci inauguration impact donc euh, Bou euh, Youssou Ndour di euh, artiste international donc borom donc disque d'or voilà donc di suñu fierté ah fierté képp kuy sénégalais defe naa loo contre contre au moins il crée des emplois te lolou ñepp war nañ ko ko mëna nangul à part wa wa kër bon xol <laughs> wa kër soxor wa kër iñaan wa kër usu bébé la rakaay ñi nga xam ne ñoo société sénégalaise donc ñu seen xol baa ngi waaw donc imprimerie bi ñun voilà on avait l'information, il y a des Sénégalais qui xamoon nañ ne taxawal na imprimerie bo 15 milliards euh, de francs CFA euh, lañ ci def ak it war employé wara donc 2000 euh, sénégalais war ci am xëy donc dinañ ci euh, vraiment ma sétane aussi intervention yi di ngeen gis intervention bu birandour euh, di euh, doomu Youssou jigen Ndour machallah vraiment il a vraiment am classe éduqué ñun loolu lañ ko xamé nit ku nit ku am yar am éducation ku tay discret aussi à part li ñu ko jox comme responsabilité avant muy ñibbi ci Sénégal ken da ko dégg ci lenn et je pense que doomu Youssou Ndour yépp aussi c'est pareil hein voilà donc ute ak euh, ak ou sou Bébé yu voilà donc euh, euh, gis aussi aussi ay vidéo yu melni ni vidéo bu bang

voilà donc waa kër Yamadi tax instant bi ñi ñu ñami Euh la sortie du Ndey Khadi, Ndey Khadi mi nga xamantene borom sud Beauté Ndey Khadi mi nga xamantene ni bu euh, genre bi ci perruque yi ñom sen, dañ jékki-jékki rek Ndey Khadi ñu gis ko euh, muy voilé wu donc euh, mom saa yu dara wara xew audition wara am ak yu demee noonu mu génn dal di daal di live Ndey Khadi Ndeye Khady soskat bu mag bi voilà donc Obeline Thiacho bi voilà donc dañ ñëw ci li ni mel gis ngeen ne également lu jëm ci audition bi gis ngeen benn document bo xam depuis démb

ñi ngi ci biir administration sénégalaise ñi ngi fépp yàq nañ kër yi ci biir ci biir famille yi tàqali entre frère entre sœur entre jëkkër ak jabar xam nga dugal haine ci suñu biir donc voilà lii mooy preuve bi c'est un policier euh, ndax dinañ ci ñëw léegi léegi donc dinañ ci ñëw léegi léegi euh, aussi gis ngeen ne ils ont mis de l'eau dans leur bissap euh, ñi nga xam ne moom mooy waa kër waa kër Ousmane Sonko akit it journaliste parce que léegi avant c'était non euh, dossier Sud Bossé Sud Beauté ay mbirum Adji Sarr euh, gars gaay nañ ko de côté parce que complot la du buñ ci ken waxati gars dal daal buñ ci waxati parce que euh, nekkatu à l'heure du jour voilà donc ñom teg nañ ko teg nañ ka bi ci souf voilà te ñom ils l'ont fait exprès parce que complot la xam nañ ne affaire affaire bu du dem donc légui biñ xamé né mënu ñu recc ci audition té procès ngi xéñ ñu ñëw né c'est normal mu dem wuyu ji c'est normal Ousmane Sonko dem ji parce que pour mu mun a sax setal bopom enfin non pas setal bopom pour que ñu mun ko setal voilà baña indi baña baña baña a def procès faut ñu déglu ko c'est normal y a rien d'extraordinaire alors que dem uyu audition audition rek convocation mon mo jur quatorze morts parce que wa Pastef balaa sama yaram di tang wa Pastef xam ngeen ne waa que Ousmane Sonko pas seulement waa passer les sympathisants également là parce que la racaille de Facebook YouTube, c'est des sympathisants de Ousmane Sonko c'est des sonkistes Khamgenne, nawon ne wonina Khamgenne, la woon manifestation 2021 mars 2021 ce sera très difficile euh, de de reprendre qu'on ait le même scénario parce que gars yi dañ leen lolo loolu dëgg bi xam ngeen ne mënatul wonina la woon sais eh, eh, taal dëkk bi loolu mënatu leen ko wala dina pour ah non c'est rien <laughs> euh, c'est juste une audition parce que même ça, pour ñu c'est ko pour pas que mu procès foog ñu déglu ko ok ci donc gars yi c'est vraiment avec plaisir que lay am comme invité euh, donc monsieur Abdoulatif Kane ñu ñëw ci mbirum pétrole bi ak gaz bi sama gars yi dinañ fexe ba mu nekk waxtaan boo xamante ne ndax mbirum pétrole ak gaz parfois day xaw a euh, ce sera pas technique tey euh, te maag moom on est sur la même longueur d'onde pour man la meilleure communication pour surtout dëkk bu mel ni Sénégal euh, ñu utiliser des mots simples pour que yéen ñi yàgg di seetaan sama live depuis 2016 ñi dégg tubaab ak ñi déggul tubaab ñëpp ngeen mun cee gis seen bopp mu mun leen expliquer ba ngeen xam ne di ngeen mun a xam lan mooy enjeu yi lu tax ay ñoom Clédor Sène di ñam ñammi c'est sen sen sen Ousmane Sonko di ñammi ñammi lu instant bi communication boku ko ñom Ousmane Sonko président Macky Sall dafa signer ay contrat euh, pétrole ak gaz surtout la dernière nenañ signé ay dañoo dañoo jaay suñu gaz jaay gaz Amérique États-Unis d'Amérique comme nak président Macky Sall dafa signer ay contrat pour pétrole bi ak gaz bi mota day troisième mandat des forcer pour maanaam 2024 mu bokk ci jongante yi pour nekkat président ndax Il dafa signer un contrat ba pareil. Quand il est obligé il est obligé par rapport ak bitim contrat yi signé pour euh, a euh, euh, maanaam briguer troisième mandat loolu que bëgg veux dire, ci que sénégalais yi xoolal comment ils sont sournois Regardez-moi comment comment ils sont vicieux ñëpp ñi nga xam dañoo contre deuxième troisième mandat bi ak ñi nga xamante ni ñom politique ñom ñoo nek ci mais pétrole ah kon ñu suñu suñu suñu suñu kom su suñu suñu suñu suñu pétrole lañ bëgg a caxat caxatee kon daal maanaam euh, euh, euh, lépp loo xam ne dafa profiter Sénégal kon président Macky Sall ak mbokam ak ñamu àndal dañoo bëgg a maanaam mirage Sénégal voilà ay vrai de seytaane lañ ñu ñëw nag gars yi ñëw donc ci inauguration impact bu Youssou ma jigéen Ndour gis ngeen ne Youssou Ndour à part Assane Diouf moo ko fi njëkk a saaga Assane Diouf amul lu mu desalul Youssou Ndour ginnaaw euh, euh, ki ni mel am na la racaille la racaille de Ousmane Sonko comme ni ngeen ni ngeen ko xamee di ko yekk lu ñaaw moom ak njabootam gis ngeen ci manifestation mois de mars 2021 bokk na ci kër yéenekaay yi nga xamante ne ni dañ dem attaqué ko waa RFM waa groupe Futurs Médias ñu attaqué leen ndax ñoom mënuñu supporter Youssou Ndour muy liggéey ak président Macky Sall pour ñoom comme Youssou Ndour mi ngi liggéey ak président Macky Sall kon Youssou Ndour de utiliser teleem ak rajoom ak observateur jour quotidien bi pour maanaam xeex leen ñoom waa kër Ousmane Sonko pourtant ñëpp gis nañ ne surtout émission boo xam ne dama koy seetaan tou le temps di euh, jàkkaarloo wala émission Pam Ngagne Ndiaye ak même ci sen journaux télévision yi et journaux télévisés et cetera ils sont vraiment objectifs. objectif Bouba Ndour sa gaay ci bopam man ak ñun ñëpp ñu ci bari dañu ne Bouba Ndour dafa ragal wa keur wa keur Sonko yi man a commencé par man je le dis sama xulóowaale Youssou Ndour euh, euh, Bouba Ndour man Mati mos naa seetaan sa ben jàkkaarloo dama ne Bouba Ndour mi dafa melni wa keur kër Ousou Bébé dañ ko traumatiser dafa ragal wa ko Ousmane Sonko ndax Bouba Ndour dafa mel ni bu toogee jakarlo il est là pour l'opposition radicale pour pour pour waa ko Ousmane Sonko. jamais mu wax lo xamanteni ni c'est euh, euh, manam lu ñagas la ci Ousmane Sonko man mom la gëm ils sont objectifs mais ngeen siñ fang yu sundur ak ak ak wa këram. waaw na fay impôt yi dugg fi genn fi Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de de Ndoye Ban. Ndoye Ban, nee képp ku bëgg diriger Sénégal. na nga amal njëriñ Senegal. man doy ban ba mu sampé ndëna bëgg nek nekk maire maire piin eh, maire pire pire man gaw ma ndoy ban nga liggéey ci suuf ndoy ban amal na ask amal na wa waa pire njëriñ ci suuf na wa pire amal leen njëriñ di len jappalé bañu joté dan dañ ko votel Ousmane Sonko mi di critiquer képp ku baax nek ci Sénégal ku melni ni Ndour di créer ay emploi mu def la mu def la ennemi di la di la xex ndax te na da nga euh, Youssou Ndour dafa jégué président Macky Sall Youssou Ndour fayul impôt waaw d'accord yow lan nga def pour Sénégal lan nga liggéeyal Sénégal yi Ousmane Sonko loolu bu tour ay wax yu bari Ousmane Sonko wax ak ay dige Ousmane Sonko inondation yi ndax yëkëti nga saako ceeb dem ci banlieue bu wala nga yëkëti ay enveloppe pour jappalé ko askan wi musumako gis. Ousmane Sonko ndax mos nga yëkëti jokk rek né da créer GIE pour les femmes et les jeunes jël par jappalé nakar ko mosuma ko gis sa yu ñu est-ce que di nga jël ci sa alal ñëw jappalé ñu ñun wa Sénégal mosuma ko gis Ousmane Sonko usu Bébé ci li ma lay dégg yeen wa Pastef ay da ngeen di bay kanja def ngeen campagne agricole de ak mbeyum kanja gi té xawma fan la ndax seen làmmiñu rëy bu doon succès la ngeen ngeen bëgg ñoo rey ban njëriñ nga amal Sénégal yow Ousmane Sonko même bu fekkee Maty dafa contre Ousmane Sonko jàppale leen ma bu fekkee ne am na benn œuvre bu extraordinaire bu mu def Sénégal jàppale ko ñun citoyen sénégalais yi wax leen ma tuur ñu ay wax ju bari dafa yomb kii détourné na Macky Sall guddi Macky Sall bëccëg lan nga teg ci suñu loxol ñun lu concret ñun sénégalais yi nga jàppale ñu ñun jamono bi partout dans le monde surtout France gi ma nekk gaa yaa manifester ndax deuk bu nakari gaa manifester ndax ndax ndax ci Covid njaa yi manifester ndax Ukraine guerre Russie Ukraine dafa metti pouvoir d'achat bi de bi yëpp dafa metti rawatina les pays sous-développés comme comme le Sénégal Ousmane Sonko est-ce que yow indi nga idée l'union ñu war a mën a génnee ci coolo gi ñu solution déedéet Ousmane Sonko lan ngay wax yow ak sa gars troisième mandat 2024 ña nga ci 2022 tout le temps politique yow sa intérêt rek deuxième troisième mandat wu Macky Sall moo la soxal waaye ñun soxaluñ la ci lépp looy dugg ak la saa yow jaanoo ak presse mbirum politique jamais nga wax loo xamante ne ñun ci suñu quotidien la ñun sénégalais yi gars yi ubbi leen seen i bët loolu mooy wane ne waa ji dara ñoru ko lu dul dem jëli ji place Macky Sall dara ñoru ko lu du dem jël ji place Macky Sall kon nag gars yi ñu continuer Birane Ndour leen ma tuuti rek bëggoon naa teg benn benn benn vidéo vidéo euh, euh, Birane xam naa suñu invité euh, même bu dee 30 dinaa la jël à 16 h heure de Dakar may leen ma tuuti bu fekkee ne voilà ma jël juste rek ngeen déglu président Macky Sall. déglu président Macky Sall ak tam Youssou parce que c'est Anita Diop mom la jëlee vidéo bi. du deug bo si vous di dem ragal ndax dina ñi lay bi ñi bañ ak ragal duñ la bëgg waye seen biir xol xam nañ ne Youssou Ndour jambar la. billahi. njaboot gaa nonu noonu voilà njaboot gaa ngi le fils d'ousmane Sonko pour ce concert des casseroles. lu amul fu fulaak fayda ba tey man daal bokkuma ba tey ni daal ñett la.

mu bëgg nag instant bi ni jamono ji ak gaz bi pétrole bi ak un troisième mandat bëgg sénégalais yi président Macky Sall gouvernement instabilité ci Sénégal Ousmane Sonko mes propos pour ñi nga ñu ngi naan Californie Sall lay dal Mati des des trois pommes ma xamal dans ma vie j'ai tout vu tout vécu nañ ma camp pénal huit jours ma jóge ca sama avocat mu may dégg ci live laa nekk maître Ousmane sey convoqué ma këram maak sama jëkkër mat mu toog ma toog mu ne ma procureur on lui a fait un enfant dans le dos ma ne baal naa ñëpp génn nag pare sama procès la ma xoolal dama gagné sama procès dugal nañ ma camp pénal huit jours mun naa porter plainte ñu dédommagé ma kon man du kaso laa ragal awma lu may ragal ci xeex bi xeex bi dama ci dugg pour moom Ousmane Sonko du pour kenn Ousmane Sonko d'abord et quand j'ai connu qui di Adji Sarr wa nak ma am beaucoup d'affection pour elle mais c'est Ousmane Sonko baaxul ci askan bi motax jamono ji lan lay wax sama gars coalition tous dañ ma jox légui ben idée gars yi nañ taxawal coalition tous sauf Sonko bindal len ma coalition tous ci commentaire yi dafa am kuma wo kuma jox légui idée bi ne ma lu tax duñu taxawal benn coalition coalition tous coalition tout sauf Sonko Dina ko dox wax ko coalition tous tout sauf Sonko ñu Nous dina dina am ño xamanteni ni tous lay tuddu dina am ñu nga xamanteni Nous dina len leen contacter ñooñu ñoo pour ñu ñu diriger coalition bi man bokuma ni rien du tout j'ai juste des idées ñun on sera derrière côté communication et tout mais dina am ñoo xamné ne dañ leen di jital dinañu waxtaan ak ñom Matar ak goulal wa xéxal Sénégal am fa ay représentants ci coalition tous dinañu jëm seeti ji waa wa Femme Force activistes yi nekk ci internet bi dinañu waxtaan ak ñom amna ñi nga xamante ne ni fës nañu ci démasquer campagne ci démasquer ki Ousmane Sonko dinañ leen contacter pour la coalition tous tout sauf Ousmane Sonko tax man mom la gëm té amna ñu nekk Sénégal mom la gëm man kuñu mëna fal Sénégal man na président Macky Sall def de mille cinquante mais pas Ousmane Sonko man kuñu mëna fal Sénégal baxna pas Ousmane Sonko kon ñu né coalition tous tous sauf Ousmane Sonko on continue. Gai, ci audition bi euh, voilà mbirum califon Sall gaay donc voilà nee nañu après califon Sall man man lay doon ragaluma tituma te mois d'août Sénégal lambar lambari naa fa ma neex fu ne ma tuj fa dugg ci aéroport international euh, euh, euh, Blaise Diagne foofu laa duggee ba may ñibbi fa laa jaar nek ci biir meddu Dakar wi di len romb tribor ba boor dinaa ñëwaat Sénégal inshallah allah rabi ragaluma kasso aw dara lu may ragal ci xex bi. kon nag Khalifa Sall aussi ñu diko féliciter comme genn na comme ni ko waxee il a été courageux assumé na dem na prison un mois genn na ah, il a été digne ci mbir mi.

munima ne ma ci 7 h du matin mané ko ndax mun ko annoncer ci internet bi Facebook munima amul benn problème goudi sa dina def live pour remercier gaay yi kon nag maa ngi euh, euh, donc mastawu ki di Kaliphone Sall euh, di ko encouragé bu baax a ba gaay fuñu danelé bala ñu jël suñu suñu suñu invité gis ngeen ci audition bi ni ma la ko waxee sànq Ndeye Khady Ndiaye génn na di wax Ndeye Khady bu sono sa bopp bu fekké né pour jema a kekkantoo ki di Adji rabbi Adji sar ya ko mag de yaa patronam mais def la raw roppi la c'est-à-dire la c'est-à-dire que Adji Sarr ci bopam mo la lijjantiwul dundu la c'est-à-dire que dundu la dafa c'est-à-dire que yow yow yow ya doon patronam mais dafa mujj dafa la mujjee xeeb na xam nga kan lay kan moko yité. yitteel Bébé moko yité. Pa pas yow Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye néna na buñu défé procès dina am ñu bari ñi nga xamante ni ay kilifa ay autorité ci Sénégal dinañ dem xaru ji mais cette femme elle est tellement bête elle est tellement idiote je comprends maintenant pourquoi elle, Malik mu ci TFM ni Ndiaye ci complot bi la parce que elle veut tellement bien faire mais elle est bête elle communique très mal dafa bête yow bu fekkee ne nga procès bi ñu bari sen dossier médicaux dinañu dem xaru parce que lu des dina feñ ah Ndiaye kon Beauté massage thérapeutique mo fa am kon Beauté bordel la ngeen ma kon yow yaa ngi avoué ne suite Beauté parce que Ousmane Sonko mo ne massage thérapeutique te yow am nga document yi am nga brevet am nga euh euh, euh, euh, euh document bi woné ni yow am nga droit def massage motax mom Ousou bébé Ousmane Sonko mu dem suite Beauté parce pour massage thérapeutique ah kon yow kon li xalé yi di wax deug la kon suite Beauté ay body body mo fa am kon suite Beauté kon ay ferek ak ak ak ay némalé mo fa am yaa ngi dugal sa bopp yaa ngi dugal Ousmane Sonko tey jàppal benn mbir man ak ñu bari suñu yoon nekkul ci autorité yi nañu dem sud boti suba bu ngoon jot sama ngañ na nekku ca ndax xam nga lu tax man tey bu fekk ñoom seen bopp suñu wax ne ñoom ay ay wàlluwu lañu Ousmane Sonko moo ñëw woote fi dammitu malaaka Ousmane Sonko moo ñëw ku yi ku wax mu ne waa nguur gi ñoom ñoo salte dafa ñëw pour defar jikko yi dafa ñëw pour changer Sénégal valeur yi indi ay valeur kon man tey ñi mu wax ne dañoo bon baaxuñu indi leen n'importe quelle preuve on s'en fiche Ousmane Sonko mi woote ni bés buñ ko dënkee réew mi dina changer jikko yi ndax moom dafa am valeur moom nitu diine la dafa am lu mu gëm ay conviction ak ay valeur kookoo mu yitteel ñun kookoo ñu yitteel génn leen ay vidéo lu muy mënti on s'en fiche Ousmane Sonko ñu yitteel du Duma duma duma du ma du ma yàgg ci yow ndax amoo benn importance yow Ndeye Khady Ndiaye ñu continuer ci loolu entre parenthèse gis ngeen ne léegi dafay voilé wu ba mu nekkee Sweet Beauté première photo yu ñu am ci moom ci début ci début ci début problème bi est-ce que da doon muuru seytaane pire ngi noonu jàppal donc document yi ma daanelee foofu document yi euh, am na benn document bu circuler, comme ni ma ko waxee sànq pour wane ni euh, voilà RGI sen seen code ak yu demee noonu alkaati yi et cetera et cetera par rapport à convocation euh, Ousmane Sonko ñu jël ko ben alkaati bu ngeen xolé photo yi duma woné photo bi bu ngeen xolé photo original bi waa dafa jël téléphone am jël document bi ci bopam tek ko ci ay tankam daliko photo bu ngeen xolé bu ngeen xolé bu baax euh, parce que man seetlu ma ko woon dañ ma ko dañ ma dañ ma attirer ma attention ci photo bi ngeen xol tenue bi mu sol xool pantalon bi mu sol ngeen xamné ne policier mo def li ni mel donc ils sont ils ont ñi ngi fu nek ñi ngi ci police bi biir police bi ñi ngi ci biir bi ñi ngi fu nek légui nak je lance un appel suñu alkaati yi suñu force de de défense et de sécurité alkaati yi dimbali leen ñu ba koku policier bobu jël jël document bi jox ko wa wa kër Ousmane Sonko pour ñu sanni ko ci internet bi fexe leen ba teyiko il faut donner le bon exemple traître bu fi génnati ay ay mbir di fuytaloo ay documents wala yenn information yi nëbb leen ko jant bi te suma ma sax nañu ko médiatiser waaw kay ñu continuer balaa may tàng ñu jël suñu invité parce que lu ma wax dafa am solo parewu ma de mais il faut il faut il faut il faut invité bi dugg donc gars yi ñu daal di jël euh, euh, sama sama sama invité parce que 30 moom laa ko waroon a jël lan la ñuy war a waxtaanee les incohérences ci mbirum pétrole bi ak gaz bi comme ni ma la ko waxee sànq euh, xam ngeen ni euh, léegi seen communication dañ ko dañ ko dañ ko ajusté waat euh, parce que jàpp nañ ne président Macky Sall dafa nar a bokkaat ci 2024 jongante 2024 président présidentielle 2024 maanaam dafa bëgg briguer troisième mandat léegi nag ñu jël pétrole bi ak gaz bi parce que ñoom ci seen bopp déjà Ousmane Sonko bu ngeen fàttalikoo 2019 ñu ngi ko doon wax ci ay mbirum ay acquaintance yi mu am ak yenn lobby yi ak yenn ñi nga xamante dañuy liggéey ci wàllu pétrole fii ci ci ci ci Angleterre ci ci Angleterre ak ak ak yeneen ak yeneen mbirum pétrole mo leen intéressé mo leen soxal té du néen donc instant bi ni nénañu encore une fois je le répète président Macky Sall dafa signé ay ay contrat pétrole récemment gaz bi jaay nako américain yi motax da fay il est obligé mu briguer troisième mandat parce que dafa am contrat yu signé ba pare pour rek jaxase xelu askan bi djel opinion nationale bi internationale bi contre le président Macky Sall ak ak ngouram yakata Sénégal jaxase euh, Sénégal pour ñu mëna ñom ram dank ndànk wala dox dank moom Ousmane Sonko dal ne faax tok ci place euh, euh, Macky Sall du yombé non coalition tous tous tous sauf Sonko. Je viens juste d'avoir une, euh, euh, information. Euh, Sonko prépare un Nemekou Tour, voilà, Tour à l'université avant son audition. information. L'objectif est clair, il cherche un bouclier et ne trouve rien d'autre que les étudiants. Il a sonné la mobilisation de ses troupes à l'université. Une réunion s'est tenue à l'université hier nuit pour ça def leen dégg def leen ay kër sama gars yi la information bi génn léegi léegi démb ci guddi moo wax leen ko ci olof. démb ci guddi Ousmane Sonko gars yi waa Pastef en tout cas euh, euh, ya nekk fële ci université def nañu réunion ca biir université démb ci guddi parce que ñu ngi préparé audition wu Ousmane Sonko voilà donc la Sonko ci suuf mi ngi préparé benn préparé benn nemmeeku tour à à l'université avant son audition lii mooy dëgg ci kaw dañ nan ñom ñom dinañ dinañ wuy ji amul ben problème ci suuf ñi nga préparé wu kon nak les forces de de défense et de sécurité wax jaangi nonu dinañ gëna gëstu dinañ dinañ gëna gas information